symbole la. ci vraiment mawlud ñu bëri ñooy converger ñëw euh, famille yu bëri ñooy ñëw Tiwaawoon euh, màggal si c'est vrai que muy Touba muy Ndiassane muy Diourbel partout au Sénégal dañuy euh, célébrer mawlud mais Tiwaawoon quand même c'est un symbole loolu moo tax ñu tànn Tiwaawoon pour lancer campagne bi à travers les médias et je pense que dinañ atteindre l'ensemble des pèlerins qui convergent vers les grandes villes waaw xam nga en matière d'accident il y des facteurs de risque parce que euh, il faut éviter le téléphone portable il faut éviter nga sonn di dawal il faut éviter la somnolence la fatigue donc ça c'est des facteurs de risque d'accident euh, vitesse bi aussi dawal bu ëpp tamit dafay indi accident il y a les facteurs quand yi nga xam ne ni aggravant bu fekkee da nga surchargé bu fekkee ne effectivement da nga euh, euh, euh, comment dire da nga nekk di euh, di vitesse xam nga vitesse c'est un facteur de risque et c'est un facteur aussi aggravant parce que boo bu fekkee ne am na accident ñiy dee day bari moo tax effectivement ñu leen di ñaax ñu am comportement bu baax respecter donc les règles de circulation respecter les règles de sécurité de manière générale la le code de la route. thème bi mooy ren zéro accident zéro mort c'est possible mën na nekk te loolu ñu ngi ci ñaax chauffeur yi pour ñu am comportement bu baax. changer comportement pour que accident du am. Tali Tali également directeur. Tali déjà comme vous le savez euh, état du Sénégal mu ngi am projet cinquante kilomètres d'autoroute par année pour séparer les sens de circulation pour améliorer la sécurité routière et que Tali aussi dañuy traiter point accidentogène yi loolu aussi c'est une mission parce que on a un fonds qui s'appelle le FERA war nañu dimbale pour ñu traiter point noir yi permettre chauffeur si dawal ñu am une lisibilité et une visibilité sur la route